am mbégte lool bi nga xamee ni projet bi état du Sénégal di mettre en place ànd ceeg ONG bu tudd GGGI nga xam ni gouvernement Luxembourg moo ko financé dafa tàmbali di jàppale état bi ci système boo xam ni dinañu dimbali ngir lépp loo xam ni dafa jóge ci mbalit yi nga xam ni plastique la ñu mën ko transformer ndax soo xoolee dëkkuwaay bu mel ni Touba xayma nañ ni weer bu nekk daal juróom benn fukki tonne plastique dana fi génn te actuellement amuñu ci solution dafay mujj dem ci jur gi. wala ñu koy taal muy indi daal ay problème ci santé population yi wante loolu dafa tëg tënku ci programme PSE vert bu président de la république ak li nga xam ni mooy introduction économie circulaire économie circulaire nag mooy ñu fexe ba nga xam ni mbalit yi nga xam ni day jóge ci kër yi étape bu mu bu mu mënti toll rek nañ fa créer de la valeur maanaam plastique bi laata ñuy dem di commander ay dàllu plastique wala ay polu mbalit plastique bitim réew di ko indi ñu fexe ba plastique boobu ñu créer ay usine de transformation ba nga xam ni plastique bi jógee ci kër yi nañ ko mën a transformer pour mu amal nit ñi njëriñ ak aussi mu créer ay emploi nañ jàpp daal xëy na ñun li ñu xamoon ci mbalit mooy tuuri mbalit wala suul wala taal léegi nag gouvernement bi dafa tënku ci mettre en place ay industrie yu bees yu bëri yoo xam ne dinañ mën a transformer plastique bi ba pare aussi créer ay emploi pour jeunes te dina weesu aussi plastique bi ndax dinañ xool sax wéru wàllu compost mën a dugg ci agriculture ak aussi euh, énergie ndax mbalit bi mën nañ ko convertir aussi en énergie donc Sénégal daal mu ngi jublu ci transformation boobu nga xam ni am na solo lool pour la mise en place d'un écosystème industriel autour des déchets. ñu fi liggéey nag liggéey xam ne liggéey bu rëy la liggéey boobu ñu dimbale municipalité bi ci mu jëfe ndigal yi nga xam ne moom la ko sëñ bi joxe ci mu jëmale dëkk bi ca kanam ci fànn yooyu yëpp. kon ñoom bu ñu taxawee fii def liggéey bu day noonu ku ne si ñoom ñaar dana dër si liggéey bi ñu li amee rek mooy kaddu cant. cant goo xam ne day jóge ci sëriñ bi jaar ci mbooleem bokkam yi jaar ci chef de village bi sëñ Moustapha jaar ci mbooleem municipalité bi ñu jëmale ko ci ñoom ndax ñuy jàppale ci suñu liggéey seen taxawaay rafet na te li ñu fiy def commencé naa fës ba nit ñi seen jëmi bopp ñu ngi ci sant di ci gërëm ndax tey jii bis ne ay kër yoo xam ne bañ demee kër yi seen bopp ñoom ñoo taxaw wax ne kat lii baax na ci ñun sant nañ leen gërëm nañ leen ndax amal nañu njariñ te liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci nit ñi la jëm kon nit ñooñu nag ñoom ñooy atte kon ñooñu bu buñ taxawee ni li baax na ñun mënuñ ci am lu dul rek satisfaction mënuñ ci am lu dul rek xol bu sedd di xam ne rek ni ñoom ñi ji yaay liggéey bi ñu def dañuy ñëw di jàppale état senegal ci li nga xamante ne bi aussi mooy développe mooy politique bi nga xam ne président def na ko muy vision bi mu am ci wàllu PSVR e loolu nag ci la wàcc ba ñëw ci collectivité locale yi collectivité locale Touba bokk ci te Touba am ci pàcc bu am solo waaye aussi war nañ ci njàmbaar goo xam ne njàmbaar gu rëy la Alors déjà, je souhaiterais remercier euh, d'une part l'UCG, hein, bien sûr en tant que partenaire euh, de cette composante de, de, projet, mais également la municipalité de Touba, en particulier euh, Monsieur le ministre, le ministre conseiller euh, du Président de la République, pour leur implication au quotidien dans ce projet. Je pense c'est un partenariat qui fonctionne bien, euh, qui est important. Euh, donc c'est un projet qui est financé par le, Grand-Duché de Luxembourg pendant, pour une période de 4 et qui vise euh, trois villes, euh, la ville sainte de Touba, la ville euh, sainte de Tiwawan et la ville de Dakar, sur trois filières différentes. ici à Touba, on se préoccupe de la question des déchets plastiques, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, Touba, c'est la seconde ville la plus importante du Sénégal en termes de nombre d'habitants et que la production de déchets plastiques à Touba est très importante. On parle de tonnes de déchets plastiques euh, qui représente bien sûr un problème pour l'environnement, mais également une opportunité de création, de valeur ajoutée pour la ville à travers la création d'emplois verts. Euh, notre travail du coup euh, d'appui auprès de, la municipalité, euh, de l'UCG, mais aussi de la, communauté qui s'implique dans ce projet, c'est à la fois de travailler sur le changement des comportements à travers un certain nombre d'actions de sensibilisation, dont ce pilote de tri sélectif la Journée